su ma demee ba mi di ma joxoñ wala ñu naa ma père Mbow wala ñu may adressé ci adresse nit ñu baax ñi gannaaw yàlla père Balla Gaye Ndour la moo ma yóbbu jëkk yóbbu RTS formé ma ba ma formé ay nit xaadim mi taxaw xam na li ma koy wax barki Serigne Babacar Sy maa ci gën a tuuti père Balla Gaye Ndour bàyyi na doomam bi mu jur ci baw biiram këram jël doomi jàmbur teral leen ba bu ëllëgee buñ ko jariñu jariñ seeni i mbokk Père Balla Gaye nit la ku yaatu nit la ku am fit nit la ku dal nit la koo xamante ni sii ku gëm boppam la te lépp lu ma am doy na ko Père Balla Gaye Ndour nit ku gore la maa ngi ñaan ci dooley Seydouna Mouhamed ak barke Seyna Issa Laay lépp lum la ci musa waatal dëgg la ci moom yàlla na ko Seyna Issa teeru ca àjjana yu gën a kawe bu ñuy wax ci moom fii la ñuy fanaan di ko jaale Balla gay 2 di ko jaale président saa Ndiaye waaye di ko jaale président Issa Diop di ko jaale Pam Mama Fall ñi may wax nii ñoo encadré woon école de lutte bi di ci liggéey liggéey bu am solo parce que liggéey na ko avant muy dem fissure boobu du am ndax benn instant liggéey na Balla gay nduur liggéey na Balla Gaye numéro un boo xamante ni même bu demee kooku mi ngi toog ci banc bi ndax Pape Mamadou Fall a ngi fi Ahmed Aïdara a ngi fi mais président Moussa Ndiaye a ngi fi waaye président Issa Diop a ngi fi ak Andaw Ndiaye ñooñu paa bi liggéey na ay Balla Gaye numéro un yoo xamante ni si bis bu demee boo demee une semaine wala nga daw deux semaines soo dikkee ci école ba danga xam ni liggéey na ay Balla Gaye un ba bu ëllëgee du am foofu ci yaatoom yàgg na ndax ci njàmbaaram ak yaatoom gëm yàllaam xam ne ala kulli haal kullu nafsin saa yi xatil mawt kullu man alayha fan ku dund da ngay dee dee sax day dee moom xam na loolu ba fi mu tolloon ci wàllu agem ak wàllu situation am defar na digganteem ak nit ñi waaye def na defar na diggante moom yàlla ba su demee mission bi mu doon dox am na ñoo xamante ni préparé nañu pour àggale ko loolu bu ci am benn tiit rupture du am ma leen di gërëm di leen sant. guney ndaw yi la nouvelle génération la ma xam leen fekkee seen lépp bi nu nekkee xale ma fekkee ko ma jaar foo xam ne ñoom jaara gun fa ndax amu ci kenn ku am cinquante ans te man j'ai plus de cinquante ans kon man fi ma egsi egsee gun fa mais ñoom fi nu jaar maa ngi ko bokk ak ñoom di leen gis ñi sérieuse ñi sérieusul ñi nga xam ne doon évaluer ñi nga xam ne doon fanaan àll ak sus bu nu am ñoom xale yu jigéen yi man xam naa ko te ñoom xamulun man ndax fekkee wunu ci man waaw naa lay rajo xoon tey ñu fekk fii waa Géejawaay monument bu mag ci làmb moo gën a àdduna kii nag boo ko si làmb doomu Géejawaay maa lay siyaar Dias Xaadim Anta maa lay déggee di la baax a baax a baax a baax maa lay siyaar loo mën a wax ci Père Balla waaw Baye Balla dañuy wax onze billahi mina seytaana rajim rek di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun rek di ñaanal Baye Balla sunu baay yàlla na ko sunu borom xaare ci barke mën a wax si moom bëri ndax moom moo ñu tette moo ñu yar ñu yaroo ci keppaaram xam nga defee ci kan ci kanamam lépp mu dëgg yàlla xam nga war nañu mën a wax ci moom mais li fi ëpp solo moom mooy ñaanal ko rek suñu borom ci kawee ci barke Seydou ah waaw gisante nañu waaw waaw gisante nañu waaw ban feebar moom non exact mënu feebar bi ko daloon mais tawatoon na tawat bi yàggoon na ci moom loolu waaw daa mel ni amul làmb jàppale wu ñu ko de. dégg nga ñu ne yéen làmb waa làmb jàppale wu ñu ko. waaw xam nga mbir bu xewee moment day am si ñoo xam ne ñi gën a jege rek ñoom ñoo affaire bi ñoom la gën a concerné xëy na am na feew fu mu toll ma mën taxaw fépp naan ay war nañoo jàppale war nañoo jàppale mais képp xam ne war na jàpp moom moo xam ne dafa war a jàpp ñu ñëw jàpp ci loolu la ko wax. la bëri. xam nga Pépé Baye Balla. vraiment sama papa la woon li mu doon moom ko def. Baye lu ko daloon. dafa mais te ne woon na doxu soxlaam. feebar la xam nga li may wax rek feebar maanaam yàlla moo ko moo ñaanal si àdduna ndax bakkan bu ñoom dund di nga ñam dee mais ñun Baye Fall daf ñoo ndax ndax demoon na benn instant boo ko laajee mu la tene naa tene naa sax xam naa dinaa commencé war samay entraînement a commencé waat comme yéen yi ngeen nekkee ci école bi mu commencé ñëwaat mais nag xam nga rek dafa nekk mag moo xam ni mënoo woon xam lu koy métti mu nekk gor nee na nag xoolal dafa dee si ngor bay ba la ko xam-xam ne dee na si ngor waaye dañ koy ñaan suuf kàmburam bee ñu ko tëral te mu yaakaaroon maam Limaamu Laay yàlla ko maam Limaamu Laay teeru si àjjana yi gën a kawe nañu am nañ si moom yaakaar quoi yow xam nga sax li lay wax ndax yow doo nekk dara mu defoo li ma doon rek bàyyi baala moom ko def di wax nag yow war nañu am waxtaan après. waaw d'abord damay sant yàlla rek ci juróom-teer sant sama ñaari waajur di nuyu sama sëriñ si ak sekk borom ndigal ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg te wér di ahli lamb yëpp di nuy famille lamb yëpp di nuyu monde lamb yëpp di nuyu waa Géeyaay surtout di sama xalifa général maam Cheikh Mati Diagne yàlla yóbbu ko àjjana sama xalifa général Baye Abdourahmane Seck yàlla na waaye fal yan bi ci kawam yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def di wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ci yàlla ñuy jógee ci la ñuy dellu yàlla moo bind tàng bind sedd bind dee bind dund bind ñàkk bind am kenn ku ne di nga ci jël benn sunu pap Balla Gaye tey mu ngi tey moom mu dem nii ci anam bi mu demee ñu bokk gunge ko kàmbareen gis na la ñu am am nañ ci yaakaar wér yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana gis ne Balla Gaye kenn woon ci làmb créé kon nit nekk leader nekk reenu làmb tey ji làmb perte na ku mag tey lan nga ci mën a wax waaw moom Mor Fadam moom euh, moom Mor Fadam moom macha allah symbole boobu duñ ko gaaramal géewaay mhm. duñ ko gaaramal mais nag nañu fexe def ni moom mhm. wala ñu fexe ñu rey ñu moom mhm. ba pare ziar la ziar ba jaar fexe ziar roy ni moom def ñu moom ba lépp am rek ñun ñu am ko wala ñu jege ko xam naa mënuñu ko am sax wala pour defar beeg ba Balla Gaye kenn la ko xamul ni moom mbërëm mi ngi mi ngi bi wala nekk école mbëri géej yëpp su ma daan dina ñëw ñëw ba ci man jàpp sama loxo ne nii nga war a def ak nii ak nii ak leen nii kooku ñàkk ñaar a moo ko def mi ngi ci dëgg maa ngi ci fer ko ñaanal yàlla daal yàlla yóbbu ajar yàlla mënu ko yàlla na ko yàlla def di jël loxo bi nag di jël jaal bi di teg ci waa école Balla yëpp di ko ci la Balla Gaye numéro 2 comme que moom la yàlla école bi ak ñi ci sës moom yëpp jox naa leen jaal bi quoi kon xanaa ci armero fekk maa ngi leen di fay gars yi maa leen di fay bu baax maa leen di bégee bu baax a baax maa leen di bégee waaw Père Balla moom sama diggante moom mooy diggante bi mu am ak ñëpp mooy yemale ñëpp bëgg ñëpp kon fu ma mës gis ma fekk ko mbaar ma wala ma romb ko yëpp li may njëkk wax mooy góorgóorlul amal jom mën ngaa am lu ne si àdduna te yow sama doom yuusu baat bi may gën a neex mooy yow ak sama doom yuusu laa yemale wala nga gënal ma ko tey ñi nekk ci école am yëpp da ngay gis day am ñaari kombaa jël ñaari kombaa yëpp jox ko ay doomu jàmbur bàyyi doomam soo gisee doomam tardé ci làmb lool la parce que day njëkk a defal doomu jàmbur yi soo ko defal doomam kooku nag ñu ngi koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana te yéexee ñu ay saraxam yàgg ci njabootam ndax paa bu baax la paa bu yiw la paa bu dëddu woon àdduna la koo xam ne daraay àdduna nekkul ci bopp lépp rek diine ak lislaam la paa bu baax a baax a baax a baax bëgg ñëpp yamale ñëpp waa ñun noonu la war a def parce que tey dañuy roy suñuy mag rek àdduna day toll foo xam ne yow lenn rek lay war def lu baax defar lijjanti sa bopp ci yoon lijjanti sa bopp ci lu lijjanti sa bopp ci lu nit ñi naw àdduna day toll foofu te rek jamono jooju ci yooyu lañ ne moo tax yu bëree bëree bëri gisatuñu ci. waaw Baye Balla moom xamoon nañ ko moom mun nañ wax si moom lu bëri sama papa la tur bi ma tuddee moom ma ko tuddee. tur na la. te wax dëgg naa moom ku xool ba tuddee la tur rek xamal ne moom tur boobu day dem waaw moom affaire moo tax décédé décédé bi ñëpp la metti te gis nga dëj bi tey nit ku baax la bu nekkoon nit ku baax doom am li mu am. voilà dañ koy ñaanal xam ban feebar moo ko ah la woon tànk bi moo doon métti ah te moom nee na dem na hôpital dem na fa demee duñ ko bu demee duñ ko wax duñ ko wax lu leer moo tax. waaw mais dëj bi gis yëpp a ah, mais mi ngi ne toog. mooy yoon daa ñëw pour jaale si. waaw jaxal na la yow jaxal na la. non gisagu ma ko man maa ngi doog a gisagu ma ko. Ah. gisagu ma rek ne moom mi ngi fii rek mais gisagu ma ko. ngeen ko gën a yaatal nee na nga sant naa corona kon bu baax nee na bu dëkkoon corona rek nga buñ si buñ jàppante rek dinga bu baax maa lay bëgg maa lay siyaar yow man dama laa xoon a mere bu tontu dëj sax damay damay attaque ak yow mais ba pare non ba ba après nañu wax nañ jaatal maag yow nakis dara du ax la muy muy doomu Géejawaay Père Balla xam nga ko di monument ci Géejawaay mm-hmm. te mën a wax Père Balla waaw balaa loolu dañuy wax inna ilaahi wa inna ilayhi raaji'uun di ko ñaanal yàlla suñu borom xaar ko àjjana di ñaanal njabootam suñu borom tolloon xolu muñ ci barke maam Cheikh Rafal di ko ñaanal bu baax a baax Baye Balla ñàkk nañ ku baax ñàkk nañ monument boo xamante ni monument la ci lamb monument la ci géejawaay ñu koy ñaanal yàlla suñu borom xaar ko àjjana ci barke maam Cheikh Ibra waaw. durant feebar gisante waaw am na un jour gisante nañ place am parce que suñu atelier ak place am soreewul ma dem fa xam nga mu may conseil naa ma li may wax ma doom laa lay wax xam nga loolu tey jii ku la ni doomam rek du la ko wax ñu koy ñaanal yàlla suñu borom bu baax a baax mu xaar ko àjjana ci barke maam Cheikh Fall mu dox la kii nag doomu mbër la papa Mor Fadam mooy papaam yàlla na ko suñu borom yërëm xaare ko àjjana champion man waaw cher bu baax a baax a baax naqaru naqar ak tiis moo dal ci làmb di monument doomu si làmb xamoon nga père Balla waa xamoon naa ko bu baax a baax ndax man bokkoon naa si ay conseil yoo xam ne daf ma daan conseil si lu bari moo tax dañ koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko aljana yàlla oyofal suuf si kawam ndax ñun waa Géejawaay ñun ñoo ñàkk làmb ñàkk na de mais ñun waa Géejawaay ñun ñoo ñàkk ndax euh, Géejawaay leen rek la fi nekkee woon boole ñëpp xale yeeg mag ñeeg ndaw ñëpp la nekkoon di leen boole bëggul woon ñaari nit di xuloo ak xeex waaw wax dëgg yàlla paa bu paa bu baaxoon la woon moo tax it dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko aljanna yàlla oyofal suuf ci kawam. dinaa waa jotuñu gisante nag ndax xam nga man moom li may toog bëriwul moo tax mais dinaa bi muy feebar yëpp jotuñu gisante xam nga nit moom da wax dëgg rek yàlla tax jotuñu gisante mais daanaa dégganteeg doomam mu ne ma paa ngi tane. maa ngi lay